te xiif te bàyyi sablal tëdd suuf summi sa dal dox fi suuf njagam da ngay wutub te suuf fabal sa ñam joxe te xiif te bàyyi sablal tëdd suuf summi sa dal dox fi suuf njagam da ngay wutub te suuf lekk ba sa kolluy saxar nga tëdd cib lal ba fajar jóg di soli dal la ko wër lii tey du yoon waata suuf murit boo kollam ni muut na jàpp boppam te ni muut ngir gone rekk la gu tuut te gone guy wax rekk a soob murit bu biiram ba ni muut du mën a am leer ak i mbóot te ko amul leer ak i mbóot kemam bu jóg jiitu ko fuuf lay tax nga jiitu say moroom tey ëllëg fa sa boroom ba ñépp naa amoo moroom du ne la wag lekk lu duuf fexee la am lu kenn amul te loola nag yàllaa asal du kër yi jàddu ay alal lu soxna yi soqaka foofu yàlla la ñépp amagul yàlla la ñépp jëlagul nde lu ko mooy ñépp a ko jël ñépp a ko am dawal ni siis yéefar yi am nañuy alal te am nañuy soxnaa ci jël yàlla la ab yéefar amul ak topp yàlla gu nangoof bari alal taxul a gën néewi alal taxul a bon looy tax ni tey gën a ka bon ci xol ba lay na boo ka boof nun day danoo sàggante bon te bëgg a gën ku mas a gën luy tax nu gën ku mas a gën sëriñ bi yàlla na mu ko roof yàlla na nu dolli wépp yiw te may nu dund ak gépp wér te may nu ngeen ci bépp yen ak barabub yiw bu yaboof yàlla na xolam tedd ci nun te bañ a tee tàng ci nun yàlla na xolam tàll ci nun faw te yàlla na nu roof yàlla na nu rokkas ak yiw ba nu ni nag kekk ak yiw ba far ne dàng ak yiw ba du nu daanu du nu lot kuy xuufe it dootu nu xuuf kuy duufe it dootu nu duuf kuy foofe it dootu nu foof ba guufekat dootu nu guuf yàlla na nu fab jëme nu kaw te fab sunuy jëf jëme kaw fab sunu lépp jëme kaw ba du nu jëm mukkati suuf yàlla na nu def nuy asamaaw tey dëgg dëgg asamaaw su kawee sépp asamaaw te mokk nag ba ni deliif yal na nu may teeg ëllëg tawfiix ak yi jàmm ci mbéj te may nu fawu jiitu nag waasaahi rek gaa yi te suuf yal na nu may teeg ëllëg tawfiix ak yi jàmm ci mbéj te may nu fawu jiitu nag waasaahi rek gaa yi te suuf moo jaalu dee fi defati moo jaalu dee fi waxati moo jaaku dee fi royati bu kilifa yi moyee ka fo moo jaalu dee fi defati moo jaalu dee fi waxati moo jaaku dee fi royati bu kilifa yi moyee ka fo ku war a boole aw nitam di waar a kay ful seeni gëm defu ko far boolew nitam di moye kay soowa ka fo addina yàqu na yaxeet ku yóbbu wut barab bu wéet nekk fa tey jaamoo ko wéet te sori kuy moye ka fo addina yàqu na te kët kilifa yoo ko yàq kët lu seenu nit ko yàq kët kilifa yoo koy dox di fo ku yóbbuub sa buntu kër rekk te doo nelaw faral nelaw a gën génn di lor aw nit a kay loroo ka fo ay am na nag njagam nelaw mu ban mbindee fii taxaraw xamal ni kon kon dootu raw nelaw gënul lëf ndare fo ay am na nag njagam nelaw mu ban mbindee fii taxaraw xamal ni kon kenn dootu raw nelaw gënul lëf ndare fo waa ji nelaw gënul kudul waa ji foyee ka mooy ndigal nelaw du tax ñu xëy la fal néewal ko tey mooy ko fo kilifa day mooy ko fo ba noppi tey tere ko fo bu mën la téye nag kenn fo na téye boppam bañ a fo sawar a dégg na mbiñ mu rëy ngir mooy yu rëy yi deesi mooy ngir xam na xel nit ñi mooy lay dunde ëllëg ak ñi fo foo toll gis góor ak jigéen di jaxasoo kay dox di benn suna yeneen bi ak a teen rekk di xal xalee ka ko àddina yal na bég ci nun sëriñ bi yal na bég ci nun yeneen ba yal na bég ci nun ak yàlla mi aaye ko fo sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te digle na yii moo ko warkat wàcc na musula mooy musula fo waxam a gën waxi ku ne jëfam a gën jëfi ku ne waayam a gën waayi ku ne waayam ja dëgg nag du fo foo gis ku nee fi waaye ma muy kooka nekk fa ko ma bul gëm ni kooka waaye ma waayam ja dëgg dootu fo foo gis ku nee fi waaye ma muy kooka mooy xumaaga ma foo gis ku nee fi waaye ma weddel njegam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaa ga fii ruusa kafo ba nga wurus wu sellu la waayam dërëm bu sotti la te ko ameb rax yaru la ab raxa bon day taxa fo xànjar lu dar dar ci wurus asal bu ko tëgg di gis xam ne dafay niru wurus nde du wurus wurus du fo wurus lu sellul bokku ca xaalis lu weexul bokku ca ban ba lu baaxul bokku ca nan bàyyi ko julit du fo na ban ba bëgg ku na mel yàlla na yàlla may nu mel noonu le ndax te ku na mel doo fate doo digle ku fo yàlla na sëriñ bi dimbali seexam yi nag ca dimbali murit yi jëppu dimbali ba xam ni kenn du mooy du fo lii rek lay fexe ci nun ndi soxlawul dara ci nun lu dul nu def murit yu gën yu kenn dul seeruñu fo moo tax mën naa la yàlla na am li muy mébét ci nun mu am li muy mébét ci moom itam kon lépp jag te kenn du fo murit bi maa ngi lay diggal tërik lii ma lay diggal ku ko def ak ku ko deful yow nanga ko def te bu ko ba ngirum ndigal na nga ko aw ku ko awul na nga ko aw ku ko awit na nga ko aw ba tabbi néegi dëkk ba loo sonn sonn yow wéer kuy jekki fip àll xamul ndox ak dugub fu mu newul ku fa ne yeewuwul kaba coonam murit amul solo lu koy dalit amul solo la koy rawit amul solo buy yegg fàtte coono ba koo xam ni tabbi na saxaar te génn gul biirub saxaar bu muy fexee génn saxaar te téeragul fa teeru ba ku génn nag ci téeragul lépp ko teeroo ka teral na dee fi teeroo ka teral ku ne ci digg àll ba na dee fi teeroo koo gisul na dee fi teeroo koo yëgul na dee fi teeroo koo xamul wéel ba jot sa teeru ba ku wàcc it teeru budul sa teeru kenn du la teral koo gis du wax lu dul demal jege ji fee fa ëtt ba ku wàcc tax te yi dëggul ak nit ku juddu te matul ak bu dagg te ñurul ñoo yami mbir fa seetu ba ku wàcc tax te yëggagul ak nit ku juddu te matul ak bu dagg te ñurul ñoo yami mbir fa seetu ba yal na nu yàlla dimbali yal na nu yàlla yeggale te jàpp képp yeggale nu bokk nag jot daya ba sa dénk ngi yow jàpp ko boo ko bàyyee ma jàpp ko boo ko ngëbee nu bokk ko ku yabu ngëb ku yabu ba ku déggul it ma dégg ko ku sàmmul it ma sàmm ko ku sànni it ma kori ko lu mën a xew duma ko ba ku déggul it ma dégg ko ku sàmmul it ma sàmm ko ku sànni it ma kori ko lu mën a xew duma ko ba man baa ngi digle yi wu ne tey tere nag lu bon lu ne te noo ngi jéem a def lu ne lu nu deful ak tële la ban baa ngi digle yi wu ne tey tere nag lu bon lu ne te noo ngi jéem a def lu ne lu nu deful ak tële la ko bàyyi baayam ak ndeyam dikki di sàkku sa ngërëm xamal ni ñàkk sa ngërëm neexu ko loolu dëgg la képp ku jóg yegg la nar bu ko mënee yegg la nar bu mënulit yegg la nar wax ji le wax ji taaru la xam nga te doo réerati yow am nga te doo ñàkkati yow mucc nga doo lorooti yow ku ne fi yow sant ko war jiitu nga doo toppati yow set nga te doo taxati yow rafet nga doo ñaawati yow yaa mën a war jëkk nga war xam le nga yow lu kenn xamul maye nga yit lu kenn xamul wane nga yit lu kenn gisul wane nga may gu réy gu wér samay ji kenn xamu ko won samay ji kenn amu ko won samay ji kenn gisu ko won tax nga ñu fàtte mépp mbër yow amatoo lu dul boroom waaye amoo kenn moroom képp ku lay sàkkal moroom na tuubi mooy na mooy gu bir tey boo xamul luy sa ayib danaa la wax luy sa ayib ñàkk maroo may sa ayib jooju ayib nag du la lor bul jéem a faj jile ayib doo mën a faj jile ayib yàllaa la teg jile ayib ba ko ci yow te sant far raw nga te kenn dootu la teen mujj nga di dex ak teen nit ñëpp yaa di seeni teen di seeni dex dàq nga mar dëkk nga ay dàgg fu ne bënn nga ay teenit fu ne te toñ nga yit àll bu ne samp nga yit ku nekk kër jaamu nga yit yàlla ku ne xamal nga yit yàlla ku ne lakk nga yit ngërëm lu ne dundal te saw yaram di wér te yàlla nan la yàgg a gis addina ji yaatee mu tas bu dul ko nag yow ñépp gis addina tas ba ni wesar ab lar bu bon bu mel ni man du mën a waye sang bu gën sang bu nekk waaye man def la ma man daa la ma war ab lar bu bon bu mel ni man du mën a way sang bu gën sang bu nekk waaye man def la ma man daa la ma war xarit ma jox la ak pital boo xam ni bii du la sonal te gën ci yow yoog fital di jëndi puutara ki wal xarit ma jox la ak fital goo xam ni bii du la sonal te gën ci yow yoog fital di jëndi puutara ki wal yéene lu baax ak wax lu baax ci ku bon ak képp ku baax lii daala dig fital ku baax jàpp ko yow def ko fital yéene liiw te defu yiw kon ku ko am nga am ko yow ku ko amul nga am ko yow lii lay jariñ di la musal foo gis larub yàlla bu tuub yéene ko lépp lu ko soob foo gis laram bu bañ a tuub yéene ko tuub ak rafetal ku bëgg am fital bu baax na jàpp gii fital bu baax ku jàpp gii fital bu baax am njariñ ak mucc atal ku nekk yéene ko lu baax tey wax ci ay mbiram lu baax te lépp loo man ci lu baax ngir yàlla dee ko ko defal galaaje ngi takku ko yow galaaje ngi diwoo ko yow kon ay wujjóog tegg la yow jàmm ji dikk far la dal yal na ñu may bépp julit lépp lu muy sàkkoo ko wut musal ko ci xiif ak tawa fegal ko luy waral mbugal yàlla na képp kuy julit far topp képp kuy julit julit ñi far defi xarit ànd bu wér te bokki xol sëriñ bu nekk kum ngërëm yal na ñu dundalum ngërëm dundal ñu nekk ci ngërëm tey sant ñépp ak a bégal yal na sëriñ sépp juboo seeni murit yépp juboo ñu bokk jub bokk juboo taaw ca ngir ma di jubal sëriñ bi dolli nu cofeel ci yow te dolli nuy ngëneel ngir yàlla ak barkeb jabeel saxal nu it ci sa ndigal musal nu it ci sopp la lu dul sa jëmm jile faf def nu ñu jub ñu sell jëf te may nu jaajëfa ki fal musal nu it ci sopp la lu dul sa jëmm jile faf def nu ñu jub ñu sell jëf te may nu jaadi fa ci pal te may man nag man Baabakar ma gëm la gëm gu rëy gu wér gu tol ni gëm nga Baabakar gëm Mustafa kañ gënal doon nga Mustafa gu wér naa doon ma Baabakar bu wér ngay Mustafa may Baabakar dong mu lenn lëf desul na nga ma def ku la gërëm faw te def ma koo gërëm defar ma def ku ñu xoram ku ñu musal ci lu sëful def ma ku sell ku sawar musal ma faw ciw naqar saxal ma ci cant bu wér ñun ñépp boole nu saxal musal ma faw ci tawat yaatal na it ci gépp wet téete na it ci gépp wet lu na ma lëj la jañaxal ñegee nu taw féexal ngërëm te may nu taw féexal ngërëm bu lenn lenn mën a jëm mukk ci nun lu ñu la jël ñegee nu taw féexal ngërëm te may nu taw féexal ngërëm bu lenn lenn mën a jëm mukk ci nun lu ñu la jël lu nuy lëjal na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yii yaari yëf bu ñu fi jëm bunt bu ñuy awit tëjal man lu nuy dox di dëgal lu nuy taxal ci sa ndigal te du nu lor du nu buggal lii la nu aajo nag fajal boole nu yëkkatee ki mbég nu bég te jóg fawu te jag te mucc nag ci mépp ndox te yegg yeggalay kurél boole nu yëkkatee ki mbég nu bég te jóg fawu te jag te mucc nag ci mépp ndox te yegg yeggalay kurél xarit defal bàyyik tawat ak sa bakkan muy sa tawat bàyyik tawat doy nag tawat doy loo ko wallis di tawat murit muñ ak sante ko war jéema la sax ci la la war bul bàyyi mukk la la war bala la war day taxaxab ku sab sëriñ may jigéen ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ léegi mu fab la sànni kët ku am ci sa sangub jigéen war koo ragal ngir ku jigéen ak dex bu sàgganee suluñ ca dex ga ci yeewoo ko jot amul jigéen ci sab sëriñ lu tax nga sañ ci sab sëriñ lu kenn sañul ci sab sëriñ ku ragalul yàlla du nit bul maare ngir amul jigéen gisal wetañ am nag jigéen te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñi fab sànni mu rot dara di dollikuk cofeel te dollikuk ragal ca teel ñu daal di lay dolli ngëneel te may la mucc gu rafet tuubal ñu may la sutura xor li nga mooy ci sutura fekk li nga bañ ci sutura nga daal di jag faw te set ku wàcc luy niroo ki mooy te rëcc luy niroo ki mooy day mel ni sax musu la mooy rëcc lu mooy faw xarit ku bàyyi mooy yépp ci suuf ñu bàyyi aw tiitam ci suuf te daal di koy fabe ci suuf yóbbu ca kaw mu daal di sut ku bàyyi mooy yépp ci suuf ñu bàyyi aw tiitam ci suuf te dal di koy fabe ci suuf yóbbu ca kaw mu dal di sut dalal di rottiku ca suuf bàyyi lu dul ndigal ci suuf ñu daal di lay ràññi ca suuf jéggal la may la sa mébét ab lar bu sàngam woo ci mbéy wax ko la muy bëgg ci mbéy la def la muy bëgg ci mbéy ni jël nag bañ a tawat addina ñàkkulub tawat ku ci ne ameloo tawat képp ku ñàkk ak tawat day génn addina wéret kilifa am na ak tawat ab surga am na ak tawat ku nekk am na ak tawat bàyyi tawat daala rafet ku ñàkk am na ak tawat ku amalit amul tawat kenn du ñàkk ak tawat te tàbbiwul àjjana kët koo gis ñu naa sant na it ñu ngi wéyaale ay tawat yu réeréy ak mbébét yu mu amul yeewul xarit aj na mi kër la gu tiis ngir yàlla moo ci defi tiis ku ci ne faw ami tiis muñal defar def ko lewet loo mën a dégg na la neex loo mën a seeru na la neex lu yàlla def mu war a neex te yàlla daa la fii defit ña jiitu ak ña def ginnaaw ñëpp ak ña far yeex ak ña gaaw yàllaa ko def tee nga ni waaw nangul te bul bañ a kaxat ku jiitu kenn jiitalu ko ku topp kenn tufalu ko ku dul boroomam dégg nga ko ku réere wax jee lu nit lu yàlla te ku mu neex ak ku mu neexul na la neex képp ko àtteeb yàlla neex mu falu am la muy mébét yàlla nu àtteeb yàlla neex fawte lépp lu nu neex loola la yàlla neex a neex yàlla te sa sëriñ biit maa ngi dagaanati yu baax yu am njariñ loola ñu baax ñu am njariñ ñu baax a baax te boole am xel ak fit maa ngi dagaanati lu yees ngir yàlla am na may gu yees sëriñ bi am na may gu yees man nañu maa dolleeti it yal nañu ni ñu dollin murit gu yéemu loola ki murit yu gëm yu wàññi ko murit nu gudd fan amul yërit bëstu la bon bu dee taxawu seytaane dal di jóg taxawu ni jonga maa jógal taxawu naxale ma gaayi bay ëreen bëstu la bon bu dee taxawu seytaane dal di jóg taxaw ni jonga maa jógal taxaw naxale ma gaayi bay ëreen mboolem murit bu bay ëreen waxtu wu dee lapp ëreen xel ma ne lapp ci jigéen ku farluwul sa lépp neen jongama day jaayoo ka jaay murit bu jong mu ni ko kaay tàggale koo ki laxasaay ak ite muy niru jigéen jigéen a bon ci am murit moo gën a bon ci am murit lépp lu bon ci am murit yow bu ko seenu bu ko seen ku jox jigéenam la mu laaj xañ sëriñam la mu ko laaj ku xañ sëriñ nag la mu laaj rëcc ko gaa yi dégg leen ku jox jigéenam la mu laaj xañ sëriñam la mu ko laaj ku xañ sëriñ nag la mu laaj rëcc nga gaa yi dégg leen murit da daa wut sëriñam tey daw lu dul ab sëriñam ba yàlla jox ko sëriñam ak njariñam mu boole leen wut leen a wut seenu sëriñ moo gën di foo ko wut njariñ ab sëriñ ay joxe njariñ tey ak ëllëg nde du leneen ku muñ sa sakku sab sëriñ te bañ a wut lenn njariñ léegi nga gis lépp njariñ jóg di la wut laxasu leen koo xam ni kii lu dee fi wut lépp dalaa mujj di wut loo soxla am te doo ko wut am leen ni itte yeewu leen ku bëgg a mucc jariñu day loru ngir ku jariñu loru na door a jariñu ak dëgg ngi te dir na leen ku bëgg a dem day aw yoon koo xam ni kii awlu yoon mbiram dafay dënoo ka xiin waaye du gis lu dul nga leen ku jurewul déefu ko jox lu ñu jiwul du mën a sax ku naxewul déefu ko nax yëg leen a gaay bay ëreen ku jurewul déefu ko jox lu ñu jiwul du mën a sax ku naxewul déefu ko nax yëg leen a gaay bay ëreen ndax nga lor musal ñu ñetti njariñ mu jigéenu sëriñ bi nun gërëm nanu yàlla ci yow te sant ko ndax nga lor mu sorinu ñetti njariñ mu jigéenu sëriñ bi nun gërëm nanu yàlla ci yow te sant ko fan ko woo xeebu ñu nu fi nu ne it xeebu ñu nu yaa tax ba kenn xeebatunu lu bon ci nun nëbbu nga ko ku santulit sant nanu kuy tawatit tawatunu kuy rëccu it rëccuwunu xam nga ko yàlla xam na ko budul ko nag yow fu nu jëm ñépp ni ñee bu ñu fi jëm budul ko nag yow gàccaam gu xumb waaye jël nga ko ba gàcce gi xawe ca kaw nit dënnu jëm ci sunu kaw bopp yi mbàkke yaa ko aw sànni ca àll téye ko ku ko rek jëbbal la ngiram te jéem a sàkku sa ngërëm te lu mu am ci ay dërëm jox la ko ngir sant la ko yow def nga mboolem la la war noo defagul nun lan war yéene na noo def lan war yéene gi nag yeggale ko jëf joofet ji nga yeyoo ak yar bu mat bi nga yeyoo ak pay bu réy gi nga yeyoo def ko ci nun nu génne ko jëf ci rafet ji nga yeyoo ak yar bu mat bi nga yeyoo ak pay bu réy gi nga yeyoo def ko ci nun nu génne ko la ka gërëm feeñale ko ci nun sa bëj doxale ko ci nun sa dam awale ko ci nun sa may nu dolli ko yóbbal nu yóbbalum ngërëm te dolli nu leer ak ngërëm may sunu ñooñ wérug yaram te dolli leenug bàyyiku sunu digg ak yow it na leer sunu digg ak ñoom it na leer sunu tey ak ëllëg na leer ku nuy dëggal yëkkati ko te yëkkatil nu pere bi meetar bi it wàññil nu ko te may nu junniy barigo yu nu la jox nga sant ko te yëkkatil nu pere bi meetar bi it wàññil nu ko te may nu junniy barigo yu nu la jox nga sant ko ku nekk may nga ko lu rëy lu kenn xamul naka mu day ñëpp a ngi lay sant kaway soppi nga ñëpp ay géwël koo seer sam ñeeñu la tey ngir ñeeñu day tagg kaway te ñëpp lay tagg kaway te di la moo kooka dawal tey ñeeñu yëpp ak seeni géer yow la ñu wóolu def la géer yàllaa la def ngay genn géer ku la wayul ñàkk ndawal ku bëgg a am way na la way ngir ku la way ñu may ko way ku la wayul ñu xañ ko way ma way la way wala bégal ku bëgg am way na la way ngir ku la way ñu may ko way ku la way ñu xañ ko way ma way la way wala bégal defar nga ndaw defar nga mag yokk nga ndaw yokk nga mag bégal nga ndaw bégal nga mag yaa tax ku nekk jag-jagal fan nga nu teg ca kaw li kaw te nangu woonu jóge kaw bu ñu nu bëggee jële kaw nga dolli nu kawe jital sant nanu cant gu rëy ngir mbàkke yow daala nu doy tamay nganub yóbbal gu doy lu dul dox ak cant desul fasootunoo geesu lu dul yow rekk ak loonu diggal yar nanu sax ci sa ndigal te bañ a jàdd sa ndigal boole nga xol yépp seral boole nga xel yépp dalal boole nga mbir yépp jubal boole ngi sew ñépp réyal gaaye ñu naa jël nañu ndam ñooñu la jël nga seeni ndam yaa amee ndam yaa ëpp ndam ku nekk yow la ñu gënal maye nga ndam dige nga ndam maye ngërëm dige ngërëm loo dige ak loo dafa yam loo dige lëf du ko toxal yow loo wax ak loo dafa yam loo mata war ñu gis mu am defu la kuy wacci waxam say wax du dañ mukk asal làq ma man fi sa ginnaaw yow mbër mi dul dellu gannaaw te ku la jot dellu gannaaw ku nuy jëmeeg bërëm jañal musal ma faw ci bëre musal ma it ci kuy bëre def ma ku dul teb du bëre te ku ca jëm ñu toroxal ku jëme mbég ci man na bég ku fa bàyyi jëme ma nag na dal di seeru lu mu wekk lu tax mu rëccu te ragal boolen faw ak sunu mbég leeral sunu diggante nag faw te ñag ñoo ñag a ñag ñag bu rafet bu talatal dom ni it wéru yaram te yokk nu fan ak ngërëm ak njaboot ak i dërëm ak cofeel ak rafetal yokku nu mbóot ak njaboot sol nu njariñ ba nu ni muut lu nu defit lu tuuti tuut nga day fi yow sedd sa xol barab bu ni nekk na naat te bu mu dañ mukk ci naat bu fa ko bam ne tànk naat bu nu fa gis wenn la jël bu nu fa genn jaamu faat bu ñu fa moy bu ñu fa waat bu ñu fa jëw bu ñu fa laat yëfam ku fay nee na jubal bu ñu fa genn jaamu faat bu ñu fa moy bu ñu fa waat bu ñu fa jëw kenn kalaat yëfam ku fay ne na jubal na fa ndox ak dugub bari sabag daraf na fa bari yàpp wu leew na fa bari ña fa ne wér ceeñ ñu wéral te bu fa kenn yëg kenn coow bu ñu fa ñàkk mukk soow ku fa ne nay mucc ci coow te doy leen ak soow ak alal ña fa ne ñépp seeni xel na jëm ci yow ak seeni xol xawar lu ñuy am ci alal bu fa bayit ku nuy xatal nay jëkka taw di mujj taw gerteek yiw bu mu fa daw lenn njariñ bu mu fa daw sori fa bekkoor ak maral sunu barab bu mu maral ku fa na am xelam na dal xolam di sedd mu jubal te bu fa kenn di suñ mbugal sunu barab bu maral ku ko naan xelam na dal xolam di sedd mu jubal te bu fa kenn di suñ mbugal sunuy xol ak sunuy yaram nay sedd faw nuy gërëm daanaka def la nga gërëm te di la way ni ab géwal sunuy xol ak sunuy yaram nay sedd faw nuy gërëm daanaka def la nga gërëm te di la way ni ab géwal ma tagg sangub sang yi te tagg jantub jant yi te tagg gaynde gaynde yi ngir moo yeyoo tagg wu ne ma tagg sangub sang yi te tagg jantub jant yi te tagg gaynde gaynde yi ngir moo yeyoo tagg wu ne sëriñ si nee nañu daliif yéefar yi nee nañu daliif ñépp a ngi nag nekk ci suuf mu féete kaw képp ku ne julit ñi nangul nañu ko yéefar yi nangul nañu ko koo xam ni kii bañal na ko dara ñu wan ko ay wune képp ku koy noonoo ka bañ ñu di ko jëw fawa ka bañ muy dox di dégg lu mu bañ te di ko seer it fu ne koo xam ni kii kenn du ko lu dee fi moytu dal na ko lu dee fi bëgg moy na ko yàlla nu koy nangul lu ne lu yàlla def matu la bañ sant te mbaa nga far ko muñ moo gën a taggu di ko bañ ku yow am cant gu ne ku nangu sax teel a nelaw warab yi wax na ko ca kaw nangul ñu fab la teg ca kaw nga dal di gën gaay a gëne nangu la féete ñépp suuf kuy bañ a féete ku ne suuf boppam ba dootu jóg fi suuf mukkite ñépp a koy tane mboolem ña am kaw fi suuf rañ ba woo ku jële suuf boppam ñu fab ko teg fi suuf muy bërbëree ka kun kuni sëriñ bi nun noo ngi fi suuf sëriñ ki yow ki jóg fi suuf jàpp nu yëkkatee fi suuf may nu yar ak jàmm ju ne yaatal na it ci yépp suuf notal nu mboolem gaa yi soof ñu nekk nag ci sunu suuf ñu ne ca kaw di la wone yaatal na it ci yépp suuf notal nu mboolem gaa yi soof ñu nekk nag ci sunu suuf ñu ne ca kaw di la wone dund ba dee te baaxu la ak dox ba dee te yëggu la ak gas ba dee te bënnu la lu koy waral yal na nu moy dund ba dee te baaxu la ak dox ba dee te yeggu la ak gas ba dee te bënnu la lu koy waral yal na nu moy yal na nu dund nun te baax te dox bu wér yegg bu baax te gas bu wér bënnu bu baax te am ci ban ba cër bu rëy xanaa ko ñàkkit sañ a ñaan xanaa ko baaxul it di ñaan xanaa ko suufe it di ñaan ndax ñu yëram ko far ko may saa ñàkk gii du tee ma ñaan sama bonit du tee ma ñaan lu ma naam maa ngi dagaan yërmaande ngir yàlla du nay yàlla du nay du digle nay du defu ay du digle ay ku naa ko daala defu ay moo def lu tax mu gisu ay seenu ci yàlla yow lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxulut du tee mu baax xamal ni ak wetam du jay seenu ci yàlla yow lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxulut du tee mu baax xamal ni ak wetam du joy teg naa samay mbir cib loxoom teg sama ñépp cib loxoom ngir moonu sàkk moonu moom te moonu daa musal ba tey moonu wutal ngën jib sëriñ moonu mayit ngën ji njariñ moonu fegal lu dul njariñ te may nu jàmm ak barke ci yàlla dafay ku baax a baax te li mu def yit ku baax xam naa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay yàlla dafay ku baax a baax te la mu def defit ku baax xanaa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay ngir may na ma sëriñ bu baax may na ma it waajur yu baax may na ma it mbokk yu baax ma jóg solal cant tubay na ñépp ñëw gërëm le ma na ñépp ñëw waaru le ma ngir dañu maa may dolli ma bu raki gaayam far ma xëy feetal sama xol ak mbég feetal sunuy kër ak mbég musal mu fal mu faw nag bu dee ci muslu far na mooy seetal sama xol ak mbég seetal sunuy kër ak mbég musal nu far mu faw nag bu dee ci muslu far na mooy sëriñ bi yaa baax mbàkke sa jëf baax yaa rey xar baax yaa yor njariñ yi jubal nga mbir yi seral nga xol yi dalal nga xel yi teel bakkan yi daq nga ay wii dindi nga mar wi asi nga yi wii defar nga mbay yi topp nga yàlla topp lu yàlla yaa def la yàlla digle ci mbir yi yow am nga jaajëf maye nga jaajëf yaa taf te taf jëf far nga yi bon yi musal nga nit ñi gilli nga nit ñi wamat nga nit ñi tabal ci kër yi tuuti ñu sànku yaatee ñu sànku tëggul la tëggu yaa yor gorom yi tëggul ñu wuy si tëggul ñu del si ku yor sëriñ si na yor murit yi nga boole nuy yor faw ak a yar nuy yoratib yar dundal yaram yi wootee la woote bu kenn wuute mukk sa woote bile ci gox yi dolli nu wërsëg dolli nu ay dëkk dolli nu ak jag te yokk fan yi may nga nu ak fal faw ak i fonkal ak xaalis ak njël te ca njërëm yi yaa mat a jàpp te ku la jàpp sax doyee jàpp yaa saytu ndam yi yaa fa wàcci te ku la wàcci sax mat a wàcci soril nu muy yi na nga nu booleeg barkeeki dooleeg xol bu ni xol bu yéwén jéeg faw ak sama yi na nga nu booleeg barkeeki dooleeg xol bu yéwén jéeg faw ak sama yi walul bu gaaw ak cant yu leer ak mébét yu baax ak yu am njëriñ yi walul bu gaaw ak cant yu leer ak mébét yu baax ak yu am njëriñ yi akar na lor nit ñi ngeen la ci yoonam sant lu jafe la bambaam jox li ci dee faa dox di bëgg jëfewul ba jóg di waaxu di dem makkaate dem mirina ban baanu jox li fi dee faa dox di bëgg ko wut ba jóg di waaxu di dem makkaate dem mirina ku am la ngay wut te duggoo àll gëj fa sa kër loo bay bay cant booyal ngir sa mbay bari na lu yàlla def lépp ak mboolem li muy nar a def ban baanu koy wax ci fii noo màgg ab rëddina xam na xolam bépp dem jébbal ka bind aras banag yaram wa fii noon mi ngi di ay sori na ab jant lay muru boo séenee ni nee soriwul te boo ko dee wuti loo dox dox mu toll la na boo soxla wul def lu dul leeram dafoo mën a jëm am waa da yegg fa muy leeree di mbir tëtë na leeram gi ñëpp ko séddoo kenn amu bàyyi kee ña dem fa muy leere nañ ñoo tuuti ngir kale na foo fekk ab ndaw bu toggee ñëpp a koy musandoo jëmum jëna tuuta koy mus ay ka mus gañe na moo tax ku yow di wér toggam ga dootu la saf jul rekk lay saf ndax am lii xam ko sax bari na li lee waral gaaya xam sa dëddu àddina ji di sàkku yàlla ka daw loo xam ni loola du na nanuy bari cant yénti dikku na yénti tawat yi fi deefoon tëj liit tëju na aree ni xurun la di ñuy bay muy tawit ba mu muus mu boole muus ak yére ñor xom mu yaa gën a diis aree ni xurun la di ñuy bay muy tawit ba mu muus mu boole muus ak yére ñor xom mu yaa gën a diis amul ci sang yi benn sang doo niru lëf amul bu lay niru it lëf yàlla yaa ko ni muus meloo ni kenn sa mbir yomb muus nga urot ku muusa lay for ku ñaanam nangu yàlla na mu muus dabal lu lépp njariñ luy daw di nar a raw ba jot ko jox nu ko luy def nag ci mbuusa ci mbuus bari mu baaxal nu bii rek di ci may nu malaa mum cant moo xam ni dootul xarte dol lu mu tiis nëbbal nu mboolem suñuy bon bon ba dee suñu ñee lu moy ci yow lu ñu wax wax wax mu gëm mu fatuus bënal mu ak dex gu dootul fer gu ñépp di diis te may nu jaagi ndam ak angaari barke diis allahu akbar yàlla màgg moo mat a xam moo am njariñ sabir moo tax aajo yi du faju leeral na fépp te neexal fépp may ku ñelëf day tëj ju buntam di faj aajo ki lor du tëju jëmmul ëful nelawul ayul añaanu itam mboolem lu ni aajo biir biti yàlla na faju maa bon te baaxut sëriñ nit ñëpp ñëpp ma gën te maa fi gën ab sëriñ saa bon gi dootuma lo ku ñàkk sër ku ko fab tabal ci guddi mu dëkk ku bëgg leeral ku fab ab jant jox ko du ñor ku ñàkk sër ku ko fab tabal ci guddi mu dëkk ku bëgg leeral ku fab ab jant jox ko du ñor ku jóg di sàkku ji ndox bis dex xolam ba du wow ku jóg bi yalwaani njël for dagg dëkk ci sa kër sëriñ ji bañ nanu rootaaneeti may nanu nag teenum ngërëm bu bari ndox tant rekkan wa sëriñ ji bañ nanu rootaaneeti may nanu nag teenum ngërëm bu bari ndox tant rekkan war tayru yaa mokk mokkal koo yaru du yaru yaa am njariñ yor nu faw it koo yulul mu loru musal nu faw ci mboolem yiwu xet ji yamus defar nu faw was suñuy mbooloo fegal nu waru sëfal mu junni bi tukkal ci ngënee la ci ndëj sippil nu yëpp fii nun dàqul nu xeeti loru géewal mu géewum njariñ boo xam ni kenn du ko tas te may liit kër yu dootul ràpp mu kakata asi njariñ asi xiiwal teg ca yërmande sof tabal nu it ci sa biirum nag ba ay du mu gis yeewal ci nun faw jàmm ak topp yàlla gu wër gu sax gu sell la ngërëm ak gëm gu yéemu gu fës jëmmaw ci lépp lu ñuy aayee ka bañ ca ragal ak moy moy gis lu neexul yàlla yow ci sa bët tàbbil saxaaru ndigal faw ak sa lépp tebul génn iti bu génn génn génn ay la ci nit yamaw ci saw dig ca bañ koo weesu mukkati yow koo xam ni yam nga ci saw dig wenn ay du la jot na nopp bii diglu wax joo xam ni am na njariñ te sax ci wax ju nu santul faw foo mën a ne bàyyil boyal rekk say cër cër bu nekk di def lu nekk kay jam ju nekk kay wareelu fu ne bàyyil boyal rekk say cër cër bu nekk di def lu nekk kay jam mu jam nee kay wareelu fu ne bul wàcc say cër yu mel ni bëy yu dagg di yeewal sa cër yépp nii bëy farlu farlu gu ne yoral sa cër yépp bu sàggan ku sàggan a bon day yàq kay yàq lee kay sonle tegg bu ne laabal sa làmmiñ wi yow làmmiñ aku fa sa yam bu rëcc ci dem ku la neexul faw déggu ko yow muuñal te noppi ku noosoo noppi gën ku ne tey ku noppiwul yee ñu xañ koy gaayu baax a ku yiw malul ku xam malu ngir wi waxtu kenn du ci wax ku dul ku dof na nga malloo mallu ndax te nga raw nit ñi te mucc ci làmmiñ ak laram te ku daw ba mucc faw ci làmmiñ ak laram mata naw wax day jañu yiw du ñëddiw ay di wàññi njariñ di yokki lor na nga koy waajal ba faral ko ba yow guural te sàkkul lu lew loo def ci kollu bi yow bul def ci sab kollu lëf loo xam ni lii léerul yëngul te yëngul ba am loo xam ni sell na lew moo gën di ci lu jékkul jaaduwul baaxul ruujal ca teele ba kenn ruujul te farlu ci mbay mbaa sax nga jóg juloo gis lëf tey moyoo tilimal bëggal njariñ saw tey bañ lor di bañ lu ñu jam tey sant yàllaa ka daw loo xam ni lii léerul yootul ci sab loxoy saw yiw rekk ak sa njariñ bul def ci sab loxo lëf loo xam ni lii du njariñ xelal xalam xalamal taw yiw te sax ca buur loo def te jëkkoo xalam loolee mu ñàkk njariñ yarul te bul baj bajee kay yëngalub loxo yow di rëdd suuf ak foo koy def yu ñàkk njariñ bu bët ci pëy ndare aw yiw loo ci def lu ko muy mu di ndigal ci yow ak loo bañ te kenn du ko faj yàllante ngay muñ di nit yàlla ak a def la la war ba yàlla dikkal ngëneelam fab sa aajo yi faj moo yor lu ñuy faje aajo fii tawat ku ko nit mu boole say tawat ak say aajo bis faja faj tënkal sa tànk yi bul dox mukk jëm ci lu bon jëmal ci tool ak sëriñ ak jàkka ak yu na mel kuy jëm ci lëf lu ko dul faj lëf du sangi ca moom bul jëm ci lëf lu la dul faj lëf muñal te jubal muy dox di dem fenn tey daagoo ka dox lu mu ruum dëkk yàlla lu ñuy naw mukk di fu ko fal yom ak yoxeet jëm ci ak mooy jekki faw wa ko gën jekkil sa kër mbaa nga jóg yow jëm ci luy yéenal xoolal sa xol bi le yow sàmmal sa xol bi le yow ngir xol bi dong la yàllay teg bëtam ak a seet làqul ci yàlla bu sab xol jëm ci lëf lu ko muy yeewal ci yàlla sa xol buy bëgg a dem nga ni déet baaxal jubal jubalal say cër di wàññi sa xol di jëm ci yàlla ka daw mboolem lu bon ak a teet ñu ñëpp yal nañu um saytaane faw ci nun te um ci nun jinne ak waxtee fa ki yéefar ñu def ci sab dugub muy xaalis ca far di wurus loo xam ni foo ko fu génnee doo fa sag gëkërus liggéey ci sab dund tuubal lépp lëf lu ca bon ñu far ko jéggal la loolee ndax nga cet ni welas betal ki daa bett mbër nërmal ko féete ko kaw mënul mu bett la mbettay ay wuyee moo fës yawal nang ko bett te jaaxaanal ku wàgg ku ko yow muy bërbëree ka bañas lëf ngay bësaate ka bës yal nañ ko bett te jaaxaanal ko wàgg ku ko yow muy bërbëree ka bañas lëf ngay bësaate ka bës naa dal di jëm mën te toggal ndën di añ bu rafet ku dul bayit war a toggal ndën di añ bu rafet naa dal di jóg man te toggal ndem di añ bu rafet ku dul bayit war a toggal ndem di añ bu rafet ndem di rafet jëf rafet mbay ngir fu gopp ba dox lor ak tawat sori faakum ñax te bokk fa set soril nanu tawat ak lor ak ñax ak lu mu bañ ak mbooya ak ngooya kub daay ak lu nuy taxaxat moo teenu booyal fu nekkub àll yàlla na am lu gën taw ndam bu sooba mbég te dootu séwét buurub arab yal na toggub añ te toggulu añ muy togg nii togg nii sappeeni añ di ko yët añ yépp yal nañu booloo jëm ca mu na ko xel mu añ añal ku ko soob ak yépp waaju mu jot moo neexi gopp du sànni gopp mukk mu gat du weesu ak ñax du dog gàncax ñu naa ko ba yit daf laa koy ak cuune dut xiibon desul desewul du suq mbër la mu am doole ku tuur amu fit jamkat la waane la dub yaafus du lëj du la jël njaxlaf la luy teeya kay teeyal du fat du fat ku doy ku doylu la kuy laa biire nit ba mu jub telef du jub amul nut kem ab kemam bu ko wut du la dugg gi seen nut kemam yow doo ko gis fi barab xam naa ko la xooko man moo tee ma dem mu tërit ku pootu laa ku kenul weñ man asal ku motul yeeram baxal wi ku muy tuuroo ko siita karot ndendee yërëm nu te may nuy def wu gën ndëni ndën ngir yaa bayal yàlla ak yeneen ba mbay mu rafet ban baa di ndëndi te moo di dann dëgg di mbër saxal na jàmm mu fi nun ak njël musal mu ci bor ban baa di ndëndi te moo di dann dëgg di mbër saxal na jàmm fi nun ak njël musal mu ci ba suuxal na ndënd ya rusloo dann yépp labal bër yépp fab seeni ndam jël ñépp naa werewer ci mbooti ndëndi la nangoo mbooti dann ya jël ak mbooti ndënd ya yépp ak mbooti bëri ya ñu dar ci tagg yonnen ba ak way ci ngërëm la faloo ci sopp yàlla la roccee ndam ci mbër mu nu yor ci xam boroomam akuk toppam la làqe ngërëm te ci ragal ko la jiitoo ñépp jiitu gu bir ci muñ gu taaru gu tar goo xam ni ëndu la kës nar ak tawat la ko mbooloo ñépp yéemu biir ci not bakkan ak tabeekuk jub la waare ña xam ci dëddu ak ngor la tiimee jaambural ña ko jur ci jàpp ak njaamburam ak noppi ak ñu mu moy la sang-sang ya luy dig dëgg nit du ci mer du tëgg ab jëw du tullit jëw ku mel na mu mel téewul yiw te du ñu wax jii di doj wu ñu xar yar boppam ak yari gaayam ak di faj lu ñu am ci aajo ak lor la baaxoo sant saw wan war ak cant moo ko yeyoo aw tagg moo ko yeyoo moo def lu jar cant jar aw tagg yàlla na mu ër te ñaŋu sengunu sàkket wër lu def mu ñu dul lorooti mukk ñu doy loo yàlla wën li ci bor te ñaŋu sengunu sàkket wër lu def mu ñu dul lorooti mukk ñu doy loo yàlla wën li ci bor waxu ma ab jël yow nii jiitu ngir ku fi raw jëntéere jël waa ji yàlla boo daamu watul maab jël yow nii jiitu ngir ku fi raw jëntéere jël waa ji yàlla boo daamu bul geesu waaja nga raw geesu ma waaja la raw ngir geesu waaja nga raw fëccul lu dul daamu wéeru te bul xeebe boo dee xeebe kenn du la naw ku wéete doo xeebe lee ngay mbërëm mu dul daanu xeebal sa bopp te naw sa tàng fonk sa kem yërëm sa rakk teral mag kon te doo daanu daanoo ko jóg dana tax tey yax di damm ak a toj bu dëkk bul bëree kon doo jeng nga koy daanu bu dëkk yow ki nga man bul dëkk it ki la man nekkal di mbër mu lewet bul daane bul daanu yaf lu baam doole ndaw loo xam ni day sog a jóg day sakku doole ju koy tee jeng nga koy daanu te doole kat moo di ab yar waande doole du rëy ak rëy gu ënd la ko bi yar teeti laa daanu te doole kat moo di ab yar waande doole du rëy ak rëy gu ënd la ko bi yar teeti laa daanu koo gis mu ëpp fi ab yar mbër la muy xala ut koo gis mu néewub yarit xiibon la buy daanu bul mer ci lay daane waa jaay ak alal aku nit fulan bi yar te génn ak wàllil te bul daanu mag rekk moo di ka am yar ndaw di waaja amul ak yar ku weddi bu lay wax kooka moo daanu ku weex a weex ak bi jaawam sàll it te amut ab yar ma ngay raama kay sax weena kay daanu bul yéeme kenn lu dul ab yar xamal ni lu dul ab yar du faj lëf lu dul ab yar du tee daanu yéegal te bul jëma jëm kaw yow ba sàggane yar kuy dof ba sàggane ab yar leem xëy daanu balxaama ngi bu musaa jóg ci giseenu araf ci nuyu teggiina tax balxaama xëy daanu iblisa ngi dafa jaamoo jaamu bay bëgg a dee ci nuyu teggiina tax iblisa xëy daanu yàllaa yayoo dab ba nee xam moo yayoo ragalit man jàq naa waaru naa ngir mbëri yi xëy daanu jaayal sa lépp wute bi yar maa la wax ni le man am yaray tax nga jóg jëm kaw te doo daanu yal nan sëriñ bi jubal nun may nu yar bu rafet te yàlla nan jàppa jàppit nag ba dun daanu samay wax ak sama jëf yii yépp ak sama kër jox naa ko ban ba bu wér ngir moo fi dul daanu muy wéeru bu mu wéeru fuy daanoo ka damm ka rës ngir kon bu dee rës mu rës wéerul fu dul daanu mboolem yëy ak li may nekk ak li may nar a jëm defar ko lépp te yor koo yor bu la fu daanu tegal mu ab jël mu biir bi ci yóbbu nu kaw bul daanu mukk te bul seerooti kuy daanu sakkal mu ab kerkeraanu bi yiw bu nuy jafandoo ba yegg a yegg fi yow mii dul xaloo daanu ba xam ni dootuñu wóoteeti waxiina ci jëf ak i defiina ci ngir xajjil mu ak daanu ngir yàlla man may ma may sablar bu am sa ngërëm ba yegg rëkk fi yow mii xam ni doo daanu bun jàng mukkati bun rëppeelu bun xaw a joy nun yóbbu ndam sunu kër nun yàlla bun daanu kuy gor na jëm mu fexee fay lii mu ban bale bal ba fay gamat tëkk mbaa nuy fay di fay batale kuy gor na jóg mu fexee fay lii mu ban bale bal ba fay gamat tëkk mbaa nuy fay ba fay batale ku nañ di boole la géey ak tagg ak joxe jur na boole yépp defal ngir yàlla ban ba ñu le ngir moo yayoo lépp moo fab mbir yi yépp defar tuxal ayib yi te néewul kenn nam fitali bëggul dërëm saaxi kaw ban baa ko jox ku ko am ku xam ku daa ami saax ak gaa yu koy bayali day jàpp ndaw lu saxul sikkim defar ba mu jag xeexal ko dàqal ko dal koy wax demal wasali mu jóg di wëndeelu mel ni jant bi soog a jóg di leer a kay kawe kii baaxam di moo matale mu jóg di wëndeelu mel ni jant bi soog a jóg di leer a kay kawe kii baaxam di moo matale jawul ni yàlla yëgul boppam xamul lu ko wit gisul na git darajaam ak gaa yu koy dogale mu soo bëggee jub boroomam dëgg dëgg balab aw jën la ngir dootu nangoo génn sax ba fële dootu ngënee la ngi ko yor wet gi nekk ka dal muy tibb ndab bi muy jox muy sukk muy dënale wéral na ba ngër digganteem ak ka bind arab ak diggam ak ngën ji bindeef ak saxaaba yi le ba noppi dog diggam ak saytaane it ba mu dog mu nekk nag di jubal mbooloo yi lee fa fale saytaane mujj na koy musloo ka teeg gi këram mu des di gunda ka jàng ak wér bi ak di julli ma ngee fa yàlla di dee yaalee ka def lu ko war moo dëkk peeyam ba dootoo gis lu koy la jëli raw nay kayaafi te raw nay jinne raw na itam waroomi lor ak i lor moo nuy fa bit rawale yàllaa nu jox ki fi sut yàllaa nu jox ki fi gën yàllaa nu jox njëriñam mbër mi fiy ubale kii yàlla moo nu ko jox kii yàlla moo nu ko may kii yàlla moo nu ko yët moo yàlla foo ko jële kii raw na bët raw na xel raw njortu kenn du ko jot nan topp tànkam bi nun tey daw di daw batale kii raw na bët raw na xel raw njortu kenn du ko jot nan topp tànkam bi nun tey daw di daw batale sëriñ bi mën nañu musal ci lépp la ku ñuy ragal fawte mën na noo teral yal na ko def def na ko sax ay yëpp moonu ko fegal yi yëpp moonu ko mosal li tax ku nuy njort bunul moonu ko wan moonu ko jox day dox di wan ku ne lu baax di ko defal lépp lu baax te di ko jox lépp lu baax di ko ko dig te di ko nax moo rafetal njort wu ne banoo ngi seeni yiw wu ne tey seeni it mucc gu ne te lii ma wax du ay lara njort yi kay war naa rafet jugunu luy teeñu rafet yëgunu luy teeñu rafet ku nekk ngi ci bëkk sax kilifa daala am solo boo ko amee am nga solo boo ko amul amul solo ku wóoruwul yomb ba ma sa sang gëm ko sopp ko wóolu ko it te sopp ko te loo ma nit defal ko ko lu mën a xew kon doo toro na ngay lewet ak a wayaf fi sa përiñ tey fa biir di ko ko jox te bañ a def ab daf defal nit ku xorox te boo defit ku rax a rax jàpp na xamal ni rax jàpp baaxul gis nga sax lor gi na ci fital gu rax te bul defit ku rax a rax jàpp ndax xamal ni rax jàpp baaxul gis nga sax lor gi na ci fital gu rax defal ko yam képp ku teey ku am xelam rafet te teey ay waxam ak jëfam gi teey ba ni xelaw lennam du nax yàlla na yàgg àddina ba gën a yàgg àddina ku nar a yàgg àddina tey def yiw daala ka wax yàlla na am yaru yaram ba gën a am yaru yaram ku mas a am yaru yaram tey aw ndigal te far te sax sëriñ bi tey li ñu dagaan ak li ñu daa dox di dagaan ak li ñu xal seeta dagaan may nu ko may nga nu ko sax tuubati naa man li ma moy santatu naa li ñu ma may yal nañu fara mooy gunu mooy te dolli may gunu nu may suñu kanam yàlla na leer suñu gannaaw it yàlla na leer te fu mu toll yàlla na leer faw tamit dund di wéy li ngay ci nit yàlla na yéen li ñu may it yàlla na yéen li ñu jëñ it yàlla na yéen faw te yàlla na nu wéy yàlla na suñu jikko rafet suñu waxit yàlla na rafet suñu jëjit yàlla na rafet yàlla na nu am jaglu bu rëy yàlla na am ñëbët mu ne yàlla na am mucc gu ne yàlla na am njariñ lu ne tey gont ci ñu yokk xëy yàlla na am mucc ak njariñ bay may mucc ak njariñ ci daraja yi suñu sëriñ ba duy te boole ñëpp duy duy na ku nekk ba mu fees yeesal ku nekk ba mu yees koo gis mu ñuy fees ak yees tame ak mayam gu doy duy na ku nekk ba mu fees yeesal ku nekk ba mu yees koo gis mu ñuy fees ak yees te ame ay mayam yu doy yal na ko yàlla fay yiw ci nun te may ko yëpp yiw ci nun te fab ko teg ca kaw ñëpp te may ko may gu rëy xam naa ne am na kat woon doy na nañ ci walis ku ne waaye ku bëgg am lu ne day ruuj a kay texe ka bay bu aajowul man aajo naa bu bëggu nit man bëgg naa bu soxlawul man soxla naa ku lebliwul kenn du ko fay jox na boroomam ba lu ne boroomam it jox ko lu ne yal na ko jox yiw wu gëne wu kenn xamul naka mu day yal na nu am li nu nisër ci sunu bopp ak sunu ñoom ak ci ñoom ak sunu këram te mucc ci lor ak ci nay yàlla na am li mu teral ci sunu bopp ak sunu ñoom ak ci ñoom ak sunu kër te mucc ci lor ak ay yàlla na am li mu mébét tey ak ëllëg am gu rafet te mucc ci ndog ak tawat te yegg bay fayee ka may yàlla na yegg yeggalee te falu bay dox di falee ci darajay ban ba mu dee ak darajay gaa yi may yal na nu jag ci kër gi dee te jaglu nag sa kër gëlee te mucc fii mucc fëlee te gudd fan kër yi may yal na nu jag ci kër gi dee te jaglu nag sa kër gëlee te mucc fii mucc fëlee te gudd fan kër yi may nit bi yow yaa ngi ni lee sa kër wu tiir ni lee bàyyi ko ak sa mbir yi lee mu yor la yor sa mbir yi lee murit bi yow yaa ngi ni lee sa kër nit mu ngi ni lee bàyyi ko ak sa mbir yi lee mu yor la yor sa mbir yi lee boo ko bàyyee faw ak sa mbir mu fab sa mbir yor ko bu wér di ko defar gépp defar ngay nopp loo ko noppale boo ko bëggul faw ak sa mbir mu bala nag faw ak sa mbir ngay kër-këree ka ji fi lor di yàqulee ka yàqale nit bu mënul waru la def ku tale nag tey dox di def di defa def ba def lu saf fabal sa mbir yi jébbale jébbulu moo war murit bàyyiku moo war murit te lu ko moy warul murit dénga ko yow murit bile ku dee fi woo mat du la yoo waaja ko woo matay la yoo murit bu dëggal du la yoo dugul te kenn du ko xule fexe ba nee fi la layal du mbir walal taalub ndigal te xam ba xam bu yow ndigal ak sa bakkan ba sottile murit bi yow fabal ndigal bul bàyyi mukkit yow ndigal ku ba ndigal musi mbugal tay jile ak ëllëg jile ku ba ndigal jàppal ndigal ku fab ndigal fabal ndigal doo seer kon genn ndigal fi jile tër ak fa gële ku fa ndigal jàppal ndigal ku fa ndigal fabal ndigal doo seeru kon genn ndigal fu jële kër ak fa gële naa jóg te waare ku waaru waare te jiima waare ngir jëmmi yàlla naa jóg te waare ku waaru waare te jiima waare ngir jëmmi yàlla ku ne ngi fàggu lu nekk sàkku te bañ a fàggu ak topp yàlla koo gis ni ñuy wut jigéen a koy wut alal ju muy wut ba fàtte yàlla addina jàngi bàyyi ko léegi dëkk sa déegi te topp yàlla ñëpp ko fi baa ku jëppul it ba ku jàpp it baa te wuy ji yàlla te loo fi jagjag ak loo fi dég dég ba fi jagag ndég te fekk yàlla addina jii kat boo ko amoo nit bu ko yabew nit jaamoo ko yàlla te bu ko daagoo mukk ko doy loo rikk ko niiroo bay bay fàtt yàlla te bu ko daagoo mukk ko doy loo rekk ko niiroo bay fàtt yàlla donte dangay buur ba yëg fi buur ku nekk nga di mbuur su sew fa yàlla donte dangay seex ba sang ay seex ku nekk nga di seex su ndaw fa yàlla ku la joxub réy loo am amub réy mu ëpp lëg réy kenn du yàlla jullit du yàlla yéefar du yàlla dara du yàlla yàlla di yàlla dëddul sa bopp te dëddu fépp te dëddu lépp te jublu yàlla ku ñëpp dëddu muy door a dëddu góogale dëddu du mayee yàlla dëddu ba ngay baax boobale lay baax ngir booba lay nee sa sang yàlla ku ñëpp jublu mu daldi jublu yàlla te farlu dégloo na yàlla dëddul te faw dëddul te daw fab yi woo fa soo fab bala ñu laa fab jébbali yàlla dëddul te daw fab yi woo fa soo fab bala ñu laa fab jébbali yàlla bàyyil ku lay ba bàyyilu lay ba nëpp ka la dul baa te moo di yàlla lu la nga bit ba lu la nga bit ba yàlla la dul ba ak waayi yàlla jublu ci yàlla téye ci yàlla taway ci yàlla ak gaayi yàlla te fab sa xol bii jox sa sëriñ bii mu xar sa xol bii tabal ci yàlla jàjj du gën te xam ni kenn jàjj ko fenn yeewul ci yàlla di dégg yàlla bay wuti yàlla ba waayi yàlla kon muy nga yàlla ku mar ji su teen kun mu dafay naan teer loxoy neen mu réere yàlla ku gën na ab teen sax doo ko gis naan caag yoxoy neen bu réere yàlla dafa la def nit boolem xel ak fit xamal ni daf kët du làq yàlla itaakum xel ndab laa ngi jàppal joxe ñu seesal dell ci yàlla say penam day ak na sa xel day sa cër na lay day faw ci yàlla nit kum xelam tuut itee nitam tuut faw cëram tuut giñ ko ci yàlla nit kum xelam rëy itee nitam rëy faw cëram rëy giñ ko ci yàlla ku gàtt am xel du gudd aw xel ku gàtt ku gudd mu xel du jigee yàlla ku gàtt am xel du gudd aw xel ku gudd mu xel du jigee yàlla ku bëgg seetu na dikk seetu lii ko ci seetu du mere yàlla loo làkk santal loo ñàkk tuubal sa bopp sikkal bul sikk yàlla loo bëgg sikkal bu loo la dikkul bakkan bi yeddal bul yedd yàlla yàlla du kuy moy moo di ko muy moy muy jégg leen muy lu bon du yàlla du yeete doon doy kon yeete duy doy waande da dul doy bul doy la yàlla kuy doy la yàlla sopp la yàlla ku sopp yàlla du doy la yàlla yow bis bu nekk nga jóg di lekk doo bàyyi lekk bul bàyyi yàlla guddi bu nekk bëccëg bu nekk doo doy li lekk bu la yàlla yàllaa la fiy may ndox moo la fiy may ñam war nga koy may ak sant yàlla sant dangay daw lu dul jëfu yiw tey jëf na gu yiw tey sant yàlla di sant kay def lu bon la ngay def te doo ko baa def dug sant yàlla foo gis ku lay may danga koy watoo mooy ngir la mu lay mooy watul ma yàlla foo gis ku lay mooy doo ko watoo mooy ngir la mu lay mooy mooy ma yàlla lii ku ko xam nag dellu di mooy nag texee di gaan ak nga xam ne yàlla saa cëri fam naa saa xol bi fam naa saa lekk fam naa ngir jëmmi yàlla jox la bu wër nag yow ban ba muy nag nangul yawit nag ngir jëmmi yàlla subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin